Thank <laughs> you. Diallo Pape Djibril et c'est la pause à Partizan euh, maa ngi lay. maa ngi lay ziare. Euh, tur la. tur Ahmed Awdi noo gisee match match tey. match bii ni ma ko gisee mooy liñ fubalagul baax na mais efficacité bi lañuy yokk rek pour mën a am bii waaw. lan ak lan lañ war yokk. ah. bonsoir ma ne bi la ñuy yokk ngir mën a am bii parce que actuellement ne lu ñu fubal moom wax dëgg yàlla franchement parlant baax na waaw. classement bi Aliou Cissé na ko gisee. allez Casa bonsoir classement bi waa waa changement bi baax na waa waaye man changement bi nga xamante ne moom moom laa gën a gis mooy efficacité mu yokk ko waaw parce que actuellement ni tey Cheikh Cheikh Kouyaté dafa am deux zones mais Cheikh su bëgg naa mu daan kay Ariel tegal ñu ko góos Abdoulaye Diallo mu yóbbul ma ko la latéral su ko defee dina pour ñu am bind da yomb soo xoolee place u Salif Cissé bal bëri dafay dem mais finition dafa des waaw suñ fa amoon Abdoulaye Diallo dina gën a baax. Ah, bi ñu def waaw kontaan nañ macha allah kay. tey pour yow kan moo gën a joué. Sénégal moo gën a joué dañ la félicité daal loolu mooy l' essentiel. amoon loo xam ni moom nga leen di wax lan lay doon. ah di leen daal loolu daal laa am lu leen lu ma leen wax daal. ban message ngay lancer coach bi. coach bi tey moom Aliou Cissé merci beaucoup lañ ko war a wax ndax classé na classement. maa lay nuyu. ñoo lay nuyu ça va. Maïssa Fall. premier temps bi vraiment mënoon na gën a neex parce que pour man dama yaakaaroon ne suñu départ tuuti ak nii nga xam ne tey jii noonu la ñëwee fii supporté parce que man Touba laa jógee ni tey mais dama ñëw tey ji pour spécial. match bi parce que fan yëpp maa ngi woon ci campagne bi vraiment match bi tam bàyyi woon naa ci xel te yaakaaroon naa ne heure bi dinaa fekk mu waxuma un mais deux la am mais nag vraiment découragé wuñ ngi gën a ñaanal Lions yi parce que affaire dafa serré te kontaan nañ ci ñoom ñu ngi kontaan ci ñoom te affaire yombul mais comme dañoo nekk seen morom di ut dañu leen di ñaanal a ñaanal dina baax incha allah. tey nan nga gisee rapidité bi nga xamante ni euh, gaynde am nañ ko. vraiment rapidité nañ vraiment rapidité bi am na parce que changé na te am ci yaakaar bu baax a a baax. duñ mos a découragé dañuy ànd ak ñoom jusqu'à waaw amul benn problème vraiment. tey Aliou Cissé bi nga xamante ni def na ko noo ko gisee. xanaa kontaan ci trop kontaan ci vraiment kontaan ci parce que daal vraiment moom tey indil loo xamante ni gën nañu kontaan gën nañu kontaan vraiment daal euh, waaw merci. ñu bàyyi la nga ñaanal gaynde. incha ndam rek incha allah na yàlla may leen ndam incha allah.